alcool mo gëna bari mo tax boko talé mu tak té ñun ñëpp xam nañu alcool boko ko da ngay man dafa aram ni jullu julli warta naan alcool mais est ce que dafa warta njàpp déedéet tëjul ñap mm. parce que du lu aram lu né sobé la mm. posé na ngi ni aram na mais du sobé mm. ok ay ci wa imam jërëjëf euh, man man limay ñëk limay ñëk li moy que ci république lañu nek république du ay jullit rek ñoo nek ci réew mi donc je pense que suñu wax nañu wax li nga xam ne mooy constitution bi may président de la république muy muy jël ay dogal di ko teggi dafa tënk ñëpp jullit ak catholique parce que il faut que ñu éviter aussi jël affaire bi indi ko trop ci wàllum jullit rek ñun rek nekk ñu loolu dafa am solo mhm. beneen bi moom mooy euh, dafa am ñun aussi fu suñu euh, responsabilité nekk en tant que nit et en tant que croyant bu mu mënti nekk euh, suma ma su li imam wax euh, et en toute responsabilité damay damay xawa a wat affaire bi mu nek touti lu xawa gëna euh manam ñu teg ko ci balance mu gëna a équitable maanaam mu gëna mu gëna a parce que da fay xawa jeng trop te déggin dafa graw te télévision dafa graw euh, euh parce que euh warul nek tarixa c'est important et suma la déggee nga wax j'ai l'impression que dafa dem ci côté tarixa trop c'est pas bon je trouve man personnellement sama xam xam-xam màccul mais bu ma la déggee nga wax bu ma toogoon sama kër di dégg pour man ni fi nga attaque fi nga duggee parce que dafay dem ci côté tarixa c'est très dangereux donc moo tax mu que la parole pour wax sama xalaat ci sa sortie bi parce que d'accord ma si pourquoi d'accord ma si mooy de bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ay lañ avant ñuy wax tarixa ñun ñëpp ay jullit lañu ñii di nekk catholique mais en tout cas bu dee jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu moom la ñu tënku ñun ñëpp donc boo boo indee côté boobu euh, ma gis référence yi nga jël yëpp dafa nekk trop ci côté Tidiane. Mm-hmm. bàyyi te dëkk bi aussi dañu nekk si benn situation boo xam ne su ñuy wax rek nañu wax lu leer pour man président Macky sal mais man maa may tuuti ma leer waaw mais non déet oustaz imam euh, dama laa déglu non non nga wax 30 minutes waaw donc euh, boo dégg président Macky sal bi muy wax bi mu buy jël décision bi man óor na ma ni lu mu nekk nekk nekk président am na ay kilifa yu nekk ci réew mi yoo xam ne du jël décision boobu te jokkowul ak ñoom muy xalif général des Mourides xalif général de Tidiane xalif général des Layènes bu ñaseen ak ñëpp ñëpp ak ak ak euh, jàngu bi wax ak ñoom ku nekk ci décision bu mu war a jël noonu la Sénégal président république am doole doole doole ci benn côté moo ëpp doole ñëpp parce que moo ñu tënk mais ci benn côté am na foo xam bu fa tollo mom bu de seetee général bu mu mënti nek mom moy tok ci souf xalif yi ci kaw wala bu ko xalif bi né toogal ci souf day tok ci souf lolu moy dëgg donc dama bëgg ñu comprendre non aujourd'hui si euh, benn côté la vie un peu continue moy que ñi ngi jox ñun ñëpp di dem di doxi di jox liggéey di top suñu diiné di def li té loolu yëpp dafa bokk pour man ci li nga xamné mom moy def nit ki que sa liggéey sa jaamu yalla sa loolu té loolu pour man si le xalif général des mourides jusqu'à preuve du contraire wax ak président Macky Sall ne ko li moy sama mbébét c'est le responsable moral de Touba par exemple Touba quand même ku ñëpp xam ni ni mu tënko ah responsabilité bi gëna ma mag général moko yoré yore su jëlee responsabilité tay ne damay ubbi jumaa Touba bi ah, du président Macky Sall Nous doko mu mu jël réseaux sociaux yi mu am acte bu mu def mu image yi ngi koy gis mu ay mm-hmm. mi ngi koy ñu mu donc pour man responsabilité morale boobu waruñu ci wax ko ci côté d'accord nañu ñi d'accord euh, euh, parce que les choses aussi il faut ñu ñu wax ko nu mu demee fii fii mooy jàkkaarloo Charif euh, général des Mourides bu ubbee jàkku juma juma Touba waxul ñëw leen yéen ñëpp ngeen julli si. daf ko ubbi pour que ku ku bëgg ñëw julli ci julli ci en respectant peut-être les mesures te li ñu gis moy que ñom ñi ngi góorgóorlu ci côté bob pour parce que la vie continue donc aujourd'hui je pense que bu ñuy bu ñuy dem ci côté boobu xalif général bu nekk wala euh, leader wala wala leader euh, religieux wala euh, kii jiite jàngu bi archevêque bi ne man ubbiwuma dama tëj responsabilité boobu mom moko yoré mom lako mom lako rewmi jox mom lako ko àddina jox te lolou je pense qu'il faut ñu ñu baña a indi indi xaajat seen boobu responsabilité personnelle la bo xamné malheureusement ou heureusement

parce que ñoom tamit seen ñàkk tëj ak façon bi ñuy julle ci xam-xam lañ ko teg parce que médecin bi wax ni day walaté tax nga indi say ay ak say xaddis ba tax nga tëj sa jàkka même médecin bo mo la wax ni bo amé distance 1 mètre do la wàllu ñom kon waxu médecin lañ sukkandiku julli hmm. ñu ñeneen ñi tamit waxu médecin lañ sukkandiku tëj moo tax kon problème problème fekk la du du kii moo am dëgg du kii moo am dëgg kenn ku nekk position ba nga xam da jël say layuwaay pour mu dem moo tax da may dégg xam nga da nga si diine boo spécialisé si diine moo tax nag moo tax moo xam ne la ñetti catégorie am ñetti catégorie gi première catégorie dama laa wax ne la première catégorie mooy ñoo xam tëjuñu Tuubaa mosuñoo tëj moo tax ñooñu kenn du leen jox benn atte parce que ñoom jël nañ seen seen seen matuwaay que la médecin yi wax ne distance bi am na dépp ñu ñàkk tëj ba léegi la ñuy jëfandikoo médecin la ñun cëq la des mourides waxul fi ni waxul fi ni waxul jël fi déclaré deful fi déclaration bu ma juumul ne nit ñi ñu ñu bañ a ñëw ci jumaa ji mhm. loolu dégg nañ ko fi non oui mais mais comme il le dit euh, quand même parce que musuñoo tëj non non dama ne kay musuñoo tëj est-ce que joxewu fi ndigal ah ne bu gaa dem ci jumaa ji. ah ña fa ah jële dëkk waaw non pas que ni ubbi. tey tey ouverture officielle lañu wax. tey jii ni ni ni Touba du noonu la ubbee woon il y deux semaines. on se dit tey c'est une ouverture officielle. mais le nombre était limité au strict minimum. mais mais mais c'est pas que ñi fay ñi tey dañ ko ubbi. pour que nombre bi bu matee ñu teg ko mais ubbi na officiellement. Mhm. ils ont communiqué pour ça. Ah, moo tax moo wax la ne la ñetti catégorie am ki tëjul won Touba musu ñu tej sen ñak tej fañ ko tek moy distancer nañ ñu gis ko ci vidéo yi ñu koy xool kon ñom ci fiq lañ ko tek ñaaral catégorie bi ñoom dañu tej ndax dañu bañ état mo waral état ñëw japp ay nit yobul leen ñu tej ñan la ñettel bi nak ñom dañu tej ngir ay ak hadith yi ñu tek gis nañ ni ba légui janguma ngi ni tijji woon parce que gis nañ la taxu ñu tej ba légui mi ngi fi mm-hmm. moo tax ma wax lool alors ñu déglu docteur mm-hmm. waaw ngeen professeur ngeen baal ma ma dugg ci débat bobu mm-hmm. euh